tegante nañuy baaram bayante dileen leen fàttali tey jii ñi ngi fii ci Ñaaxar samedi le 19 février 2022 Sokh ak Simon jàppante nañuy loxo diggante Simon attention diggante Simon ak Sosokh oh Sosokh dajale na ko tuur na ko laa ilaaha illallaah oh ca gannaaw ngemb la la jàpp mel ni luy def ak moom rotation rek daan na ko jël bu rëy cey Sosokh. Franc moo sàcc doole tuuti diggante Franc ak sele Selemele attention.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 ponkal xajul ci ay tàng Franc ak Sélémélé Franc ak selemele attention hey attention Sélé daw na jàpp génnaat Sélé jàpp na léegi bàyyi waat li ma jaaxal ci combat bi songob kaw rek lañuy ñuy songoo gis nga bopp rek la ñuy tegante te bënta naax wala ku nekk ndengeñ te loolu jeexalul combat bi combat bi pour mu jeex foo ñu bari ci suuf gis nga Franc war na ko domb ma ngi koy tuur ma ngi koy tuur Sélé Méllé ngay bañ. Franc war na ko ndomb da koy buddi wala da koy dëpp da koy buddi wala da koy dëpp Franc attention eh, laa ilaaha illallaah ey eh, Sélé daanu nga Sélé toog na Franc daan na ko <laughs> waaw la leen arbitre ba yóbbu Pape moo ñu won gannaaw ngembala nag dafa xotteeku cay lii làmb ndey faatu adama jali mooy way jab jaañ mooy tëgg yaxya joob yëkkini le roi des arènes moo ñu fi andi samedi le 19 février 2022 ngeen ànd ak wasaare TV Basirou juuf ju fa ñoxo bàyyi ca caméra ba waaw waaw attention Papa Ngane yootu tànk bi léegi bàyyiwaat combat ba jeex na war ba Papa Ngane Basirou soo soxla ñu jox victoire ba ñu dem jël combat Abou Assef ba Abou Assef jàpp na ngemb moo dugal bopp noonu day yenu wala lan la bëgg a def wala day def rotation tibb tànk Abou Assef Abou jàpp na ba mu dëgër xale baa ngay rasu Sonko na Abu Asef caxabal ba sori de fo da koo caxabal rek daw moom lonk tànk bi Basirou am nañu ñaari combat yu neex ci biir géew bi ñetti combat sax ndax Abu Asef ma ngay bëre noona Papa Ngane mi ngi bëre ak Pape Maroon Franc ma ngay bëre ak Adama Sarr waaw bas fu bas ñetti bu ci benn rëcc waaw waaw Abu Asef ma ngay actionné foofa waaw tël na léegi xale bi teggi tànkam li mooy lit simple ah Franc jël na ko daan na ko Franc daan na Adama Sarr ca kaw saako ya waaw waaw

attention attention Birame Mbissine fils de Batlen ku ci nekk jàpp nga si ñaari loxo ci ngemb ku ci nekk am nga ngemb fils de Batlen am na ngemb Birame am na ngemb Birame jàpp ci gannaaw ngembu Fils de leen baax na attention Fils de leen ma nga doon boot léegi bi Mbissine takk na ko takk na ko bàyyi waat na daf ko doon ëñ mais dafa mel ni Fils de Batlene dafa diis mu bàyyi. Fils leen Batlene Birame Mbissine biram dafa mel ni rentre la bëgg Basirou. fa mu jàpp ci gannaaw ngemb la baax na wante Fils de Badlène tamit am na ngemb am na loxoom ci ngemb Biram Mbissine fa mu ndengeñ baax na da koy empêcher mu liggéey Fils de Badlène siggi na Bassirou Diouf xoolal ma biir ba attention Birame Mbissine fils de Batlen fils Batlen da koo bloqué ca kaw wante Birame Mbissine da koo ndangeeñ gis nga fa mu teg bopp ba ca suufu épaule ba la teg bopp ba cey Modou Moustapha Sall fils Batlen waaw waaw quart de finale poids fii ci Ñaaxar Yaxya Joob Yékini moo ñu fi woo samedi le 19 attention oh la ilaha illallah Birame tibb na ko daan na ko oh Birame Mbissine daan na fils de Badlen oh la la la la la Joob ak Franc Diop Ndofène ak Franc ay ca ña ca quart de finale poids lourd Diop Ndofène ak Franc attention eh la ilaha lu xew lu arbitre wax cay Franc Franc sànni na ko Biram Mbissine Sène ak Papu Ngane samedi le 19 février 2022 fii ci Ñaaxar ak Faata production Yaxya Joob Yékini Papa Ngane Sossox moo ñu won gannaaw Birame Mbissine la ñu jàkkaar lool ñoom ñaar ñi ngi lewaatoo Papa Ngane Sossokh Birame demi-finale bu neex demi-finale poids lourd la cey ndey Fatou Adama Jali kenn du yow beneen demi-finale bi di dox ci diggante oh la ilaha illallah hey Papa Ngane daan na ko Papa Ngane daan na Birame Mbissine da koo jël daw ak moom jël ba rëy na daan na ko jël bu rëy waaw waaw Diop Yékini moo ñu fi woo ak Faata production attention hey Franc nga koy ŋoobu hey la ilaha illallah Franc daan na ko Franc daan na Cheikh Ndiaye daan na Mayo Franc ordinateur moo féete suñu loxo càmmoñ noonu bâtiment bu sali attention ordinateur bâtiment ordinateur bâtiment final léger ordinateur bâtiment ñaari final bas gis nga final raw gàddu bi xale ba fa mu jàpp attention ma ngi koy tuur tuur na ko mu jogaat bâtiment ca gannaaw ak ordinateur bu sali final léger final poids léger

ordinateur ak bâtiment attention ordinateur war na ko gannaaw war na ko ndombo xale ba mboot na ko laa ilaaha illallaah lan moo xew arbitre soufflé gul de hey arbitre nee na bëre soufflé na arbitre ba soufflé na ordinateur ak bâtiment bâtiment bi ordinateur bi da koy mabal wala bâtiment bi day daam da koy buddi attention mboot ma laa ilaaha illallah bâtiment daj na ordinateur ba oh ordinateur bu sali ca suuf Basirou loolu mooy final raw gàddu bi ba léegi dara amagu ca arbitre soufflé na delloo ziar baax baax. ba yaa ngi si jàmm. sant baax baax. yàlla dogal nga bëre ba dem final looy wax. waaw ah, sant yàlla rek. ki nga war a bëreel xam nga ko Papa Papa Ngane Sossokh. waaw champion la xam naa ko. mës ngeen a bëre. non non c'est la première fois ñu daje nii incha allah ci kanam léegi. mësu leen a bëre. non mësuñu bëre. ren ren nan naka nga waajee. waaw affaire yi comme ni ma waajee rek da def li nga mën rek ñëw yàlla mooy maye mooy xaña maa ñaan yàlla na ko yàlla may rek. final bi luñ ci mën a xaar. waaw moom xam nga kii champion la yaa ma gën a xam gars yi bëriwoon nañu nga compétir ba ñëw fii. xam ma comme du cuune quoi da nga koy jox wàccuwaayam rek. loo koy yóbbante. non yóbbante wu ma ko dara. amul lenn loo koy yóbbante. non kon ci kanam. merci bonne chance. jaajëf merci. jaajëf ñu ngi ak euh, Papa Ngane alias Sossokh maa ngi lay ziar. waa delloo ziar grand bi. añaaja. waaw ndig rek. waxe Noza. ndig rek. <laughs> ayca nga bëre ba maa ngi sant yàlla bu baax. waa di nuyu supporters yëpp nag. waa vraiment kontaan naa trop. di nuyu waa Ñaaxaar itam ak li ko a bëre ak champion Émile François Gomis. waaw waaw ñaari champion lañ. ñaari champion la. waaw ñaari ndaanaan. waaw ñaari ndaanaan. mos ngeen a bëre. non mosu ñoo bëre. waaw laaj naa ko sànq mu ne mosu leen a bëre. déedéet. kon li a bëre. non a yéeg ci poids lourd. waaw waaw yàgg ñoom bokkuma ñoom génération. loolu moo taxoon mais nag sant yàlla bu baax. tey tey bés bi tey sama la. tey lu ñu mën a ci Sokh ci lu bees ci final bi. non bés bi tey sama bés la. tey bis bés bi sa bés la. waaw incha lu tax nga wax loolu. waaw dama ko xam rek. dafa am foo ko teg. waaw fan nga ko teg. nañ xaar ba ci kanam. ci kanam dina leer. incha allah loo yóbbante Franc. waaw di ko wax mu jàpp mu dégg rek. mu jàpp mu waaw gone lay bëreel de. mu daanu. mu daanu. ci kanam dina leer. incha allah jaajëf mbër. jaajëf. <laughs> ña nga noonu di jëm daal poids lourd ay ca jërë jëf mbokk yi final poids lourd baa ngi noonu di dox ci diggante Émile François Gomis ak Papa alias Sossokh ñu ànd ak Faata production ki ko jiite di Yaxya Joob Yékini tey jii du samedi le 19 février 2022 et eh, est-ce que est-ce que est-ce que duggun ci le 23 est-ce que duggun ci le 20 février le 20 parce que fi mu toll nii 3 heures de matin jot na diggante Émile François Gomis Papongane Sossokh arbitre ba soufflé na génn seen diggante ñoom ñaar. tegante nañu bopp ku ci nekk bi ma la interrogé sànq am na loo ma wax arbitre attention Franc jël na ko Franc jël na tànk ba laa ilaaha illallaah Franc jël na ko eh Franc daan na ko Franc daan na ko jël ba gaaw na laa ilaaha illallaah eh waaw waaw Franc daan na ko jeex na Franc daan na ko